جاءت ببيان سابع الأيام راجع ما مضى لتثبت المحفوظ في رسخان إن شئت فاحفظ خمس آيات فقط في كل يوم طيب الأركان مجموعها خمسون مع مئة إذا في كل شهر يا أولي الحسبان راجع وكرر ما حفظت بلا ملل واكتبه مشروحا ببعض معاني العمل راجع مع الأصحاب في وقت اللقاء والنصح للأخوات والإخوان وقراءة في هاتف لو آية خير من البطلان والهذيان واقرأ بوردك في قيامك بالدجى فالليل فيه لطائف المنان في سائر الصلوات أيضا فاقرأ واشكر لربك واسع السلطان alhamdulilah jërë ngeen jëf mbokk yi ci biir réew mi ci bitim réew jërë ngeen jëf uh, techniciens yi waa Régis sunu mbokk Cheikh Abdoul Khadir agsi na Cheikh Abdoul Khadir asalaamaaleykum ñu bàyyi la nga nuyoon teg way déglu way seetaan yi. waaw gannaaw bañ la nuyoo ziar la. Mhm. baalu la ak ci koor gi. alhamdulilah. Euh, di nuyu di ziar suñu mbokk internet yi nga xam ne ñooy bàyyi xel oustaz Sall en ligne. Mm-hmm. di leen baalo ak ñoom itam di leen ñaanal kooru jàmm yàlla nangu ñaan yeeg koor yëpp. Mm-hmm. jërëjëf amin yàlla yàlla nangu sa ñaan yi tabarakallahu Cheikh Abdoul Qadir euh, loo indi tey. waaw li ma indi indi tey euh, juróomi question la. juróomi question. boole naa question. d'actualité yi. Mhm. waaye am na ñoo xam ne aussi daal dinañ may jébbal ay question macha allah ci la bokk nag. waa <laughs> loolu di bëgg naa ci lool. waaw ndax euh, euh, bëri na loo xam ne lëndëm na ci ñoom. Mhm. ci anam yi nga xam ne moom la ñu war a joxe seen euh, corps. di ponk ba am solo ci lislaam. incha allah waaw dañuy tàmbalee ci question d'actualité bi. Mhm. mais question d'actualité bi nag dafa lëkkoo ak corps gi. ndax mu ngi ñeel commission nationale de. concertation de d' observation du croissant lunaire. Mhm. maanaam kuréel gi nga xam ne mooy séntu weer bi. Mhm. ngir wax ñu ndax tey la ñuy woor wala bu euh, suba. Mhm. Euh, commission boobu dañ ci seetlu ne oustaz. bëri na ay division yu ci am. maanaam réero yoo xam ne ñoo ci am. mën nañ ko tuddee réero wala boog ñàkk ànd ci ci biir kuréel gi. noo gisee division yooyu nga xam ne jot nañ ko gis ci biir ba taxoon sax ñu convoqué leen ci ministère de l'intérieur mm-hmm. ngir indi ànd ci ci biir mbir mi alhamdulilah bismillahi rahmaani rahim subhanaka laa ilma lana illaa ma allamtana innaka antal alimul hakim mm. gis nga Cheikh Abdou Khadre mm-hmm. commission yi séentu weer mm. gis weer ak yëgle weer kenn rek a ko mën a régler te ba mu wootee keroog jàppoon nañ ne keroog lay régler muy ministre de l'intérieur hmm. ginnaaw boo wootee ñu wuy si la hmm. xëy na ca ministère ga am na fa ay nit ñoo xam ne seen xam-xam mi ngi màcc ci diine hmm. ca conseiller bi ñu wootee ba ñëpp ñëw dana war ñu yaatal woote bi këri diine yi association yi daayira yi ñëpp ñëw ku ñëwutit da nga yeble ñaari affaire lañ fay réglé benn bi mooy ñaari commission yi am ci réew mi ñii na fa màkk woore ñu woor ñii na ba buñ gisee la ñuy woor ñu waxtaan def ko muy benn ndax buñ ci jël baax na hmm. waaw buñ ci jël baax na bu ñu neexee jël na bu màkk wooree nu woor bu neexee jël na bu ñu si yéenee la ñuy woor ñu jël ci benn. d'accord bi daal ne bii lañ jël su ko defee benn annonce rek lañu am léegi mooy woor ndoog màkka mbaa woor ndoog suñu bopp loolu lay benn. bu ñaareel bi mooy ki nga xam ne mooy wax ne weer wi feeñ na ñooñu daje ñoom ñëpp tànn ko assemblée générale. ñu tànn kenn waaye commission bii fi nekkoon te Mourchid Iyane jiite woon ko yàlla na ko yàlla yokk yërmande amiin nu mel nii la juddoo woon ñuy waxtaan yi mu yàgg rek commission ba judd ki ko doon xalaat jiite ko mu dem ba ni fi jóge amul assemblée générale amul seet kees gi amul nangam amul nangam mhm. léegi nag su fi kooku jógee ci ni mu ko doon téye moom ku ko mënee téye noonu dudul am muuru ko na man la pàcc na man la galaay ne man la donc loolu ja neex naa réglé lii rek lañ ko doon def rek la danaay wax ni yaay jàmmi mii la war na ko moom am dëkkam. waaw waaw. waaye nag sunum réew dañu naan yi diine ji ñun dafa sensible nangam nangam buñ ci duggee fi la xar jaar mais aw fi te koy def ndax ñoom lañ jiital ci réew mi nag. Hmm. te su ëllëgee ñoom la ko yàlla laaj. Hmm. jërëjëf ci laaj. jërëjëf oustaz ñu jàll ci beneen ci ba léegi ci wàll boobu la. Hmm. Euh, wax nga ñaari solution yoo xam ne mën na régler mbir mi. waaye am na benn kuréelu euh, sénégalais boo xam ne également jotoon na séentu. Mm-hmm. ci tuuba ci Dakar ci yeneen gox ci ci ci réew mi. Euh, jàppoo ne foofu bu ñu euh, sukkandikoo ci wàllu calcul astronomique loolu aussi ñu ngi koy ñu ngi koy wax. Mm-hmm. loolu mënul régler mbir mi aussi. ndér mënu ko régler daf noo mën a dimbale. Mm-hmm. astrologue yi. li ñuy def mënut a régler mbir mi mais mën na noo dimbale. d'accord. mën nañoo dimbale ci séentu weer weer kañ lañ koy séentoog nuñ koy séentoog est-ce que tey. Euh, lu lu lu lu visible la wala déet loolu mën nañu cee dimbale. Mm. parce que dafay noonu dem séentu ji résultat ñu ci amee jël ko mm. waaw. loolu mën naa am solo macha allah. d' accord d' ba léegi ci mu mel ni division yooyu nga xam ne am na. am na njeexital également wax nga ko léegi. Mhm. ci ndoxteelu koor gi. Mhm. yow sax nee nga ñaar yëpp baax na. Mhm. Euh, division yooyu aussi. dina am ñoo xam ne dinañu ne bu fekkee ne dafa am ñaari. boor yoo xam ne. ñii dañu ne dañuy tàmbali ñii ne duñu tàmbali jiixi jaax day am foofu. est-ce que ci bésu jiixi jaax aussi woor fa dafay war. waaw jiixi jaax mooy bisub sikki sàkka sikki sàkka mhm. bisub sikki sàkka bokkut ak ñu ne weer yu feeñ na mhm. bisub sikki sàkka mooy kii amul benn xibaar mu daal ne ah man de amul xibaar mais mën naa am weer yu feeñ mhm. kon naa woor su feeñee ma am sens su feeñut muy naa fi la kooku la tere na ko doo fi woor a yow ah. waaye ki dégg maam góor njaay ne gis nañu weer bi barab sàngam barab sàngam barab sàngam mu doy ko mu woor amul sikki sàkk doyu ko wóorul amul sikki sàkk waaw ki amul benn xibaar na moom mu ne damay woor tey hmm. su dajee koor gi muy muy xayrun su dajee gu toog moom muy naafi la kooku bu fi wooree de d'accord wa <laughs> jërëjëf jërëjëf oustaz hmm. looloo nekkoon lu jëm ci wàllu actualité hmm. ñu dugg ci question yi nga xam ne jébbal nañ ma ko waaw pour ma jottali la ko incha allah bu njëkk bi euh, mu ngi concerné koor gi euh, nee nañu koor boo ci nekkee jëf ju baax boo def dañ koy ful. Mhm. xam naa après di ñu jox lim bi. Mhm. mais kii laajte dafa ne bu fekkee ni nag nit ki nga xam ne dafa woor. Mhm. daf jëf joo xam ne méngoowul ak jëf ju baax. luy àtte bi ak lu ko ciy fekk. jërëjëf euh, gis nga tablette yi tàndaram yi nga ma jox. yàlla nañ ko joxante ba déwénee. amiin boo ci ba joxee benn bu dee ci biir kor gi juróom-ñaari téeméer lañ la ciy dencal. tuyaaba juróom-ñaari téeméer nga joxe tey. 700 700. bu fekkoon du koor gi 9 lañ li ci tegal ak bi nga yor muy 10. kon différence bi bëri kon ci promotion lañ nekk actuellement. Hmm? noonu mu nekk ci promotion nag safaan bi itam noonu la nag ku ci saaga bàkkaaru juróom-ñaari téeméeri saaga ngay am. Hmm? Hmm? ku ci zikkar am tuyaaba juróom-ñaari téeméeri zikkar. noonu noonu lañ noonu lañ koy defee nag. moo tax affaire bi ni mel ci côté bi bu bu négatif bu bu positif bi noonu la mel ci bu négatif bi. jërëjëf ci laaj bu am solo bi jërëjëf jërëjëf ñu dem ci ci beneen mhm. bii moom démb sax euh, bi ñu ñëwee sa kër mhm. ci ndogu chez émission Sénégal 7 boobu mhm. jot nañ ko aborder waaye lii tax ma indiwaat ko tey mooy bi nga ne euh, maanaam dara amu ci mënul yàqu koor dinaa ci ñëw. Mhm. dafa am beneen euh, version bu ñu dégg itam. Mhm. ñu ne mën na yàqu koor. Mhm. muy diggante koor ak vaccin. vaccination yi. est-ce que kii woor bu fekkee vacciné wu na mën na yàq dara ci kooram. waaw xam nga bu ñu jëlee question bi jëlee ko ci fiq yóbbu ko ci affaire scientifique yooyu. wax ne ñàkk bi. lu yàgg-yàgg day dem ca yaram wa mën naa am mu àgg ca mbaq ga mm-hmm. la fay àgg ñaata la lay àgg mm-hmm. ñaata la ci chantage est-ce que ca mbàq ga lay dem pour wóotu lekk wala wóotu naan loolu la scientifique di gëstu li fiq waxoon rek mooy pikiir yàqul koor ñaqu yàqul koor tuufu yàqul koor ñu dem d'accord kon leer na incha allah <laughs> ñu dem euh, ci beneen euh, bi mooy mujj sax mooy euh, question bu mujj bi. Mhm. je pense que si sa waxtaan léegi jot nga ko aborde mhm. wàllu ay ay loobeek yooyu. waaw <laughs> waaye fii kiy joxe question bi dafa ne. ndax ci biir weeru koor est-ce que may nañ jullit bi ci biir weeru koor mu sekk ak jabaram. laaj nga laaj ba am solo te itam laaj yi nga indi nii te ni jox la ko ci jataay bi maa ngi ciy bëgg lool macha allah. Mhm. Euh, suñu borom daa wax ci alquran ci suuratul baqara uxilla lakum laylata siyaami arrafathu ila nisaikum mu ne guddig weeru koor maanaam buñ naanee ndox ci timis ba baa ñu julli fajar wala ba baa fajar di jot diggante boobu bépp may nañ ci nit mu joxe ak ay waaye bi yàlla tuddee lalatu siyaami li muy tekki mooy kon bëccëg bi nag mayu fa dara bëccëg bi mayewu fa dara su fekkoon nag monsieur dafa woor madame woor ñu bokk lal bi tëdd nii rek tëdd rek comme sa amul problème waaye nag bëgg faa def dara wala séq fa dara wala nàngam ñu leen déedéet leela te siyaami lañ leen ko may hmm. waaye may leen ko ci bëccëg mooy guddi koor mooy guddi weeru koor guddi weeru koor waaw seen na euh, euh, julli nañ timis c'est-à-dire bëgg wax ne jant bi sona hmm. dog nañu dog nañu tëdd jot na bu leen neexee joxe ay suñu borom sax daf cee yëmul def ne ku aye na bëgg fal aana baashiruhunna ku aye na bëgg teg na ca nag ne wabtaxu maa kataba Allaahu lakum bu leen planifier nag xaju si mu ne mu ne hmm. ngeen di joxe ay na ngeen wut ay bébé ca ay ga maanaam maanaam bu kenn am soxna di joteeg moom ci biir weeru koor wi tey jëf loo xam ne day tax du am doom hmm. wabtaxu maa kataba Allaahu lakum hmm. noonu la ko ci jeexale d'accord waaw ci la ñu teg suñu baaram tey xëy na bu ñu yàlla dellusiwaatee ñu continuer ko ci kàttanam. incha allah mm-hmm. d'accord jërëjëf oustaz si si euh, tontu yi. Mm-hmm. ñu ngi la si jaajëfal bu baax ñu ñaan la rek nga dénk ñu balaa ñu tàggatoo. waaw maa ngi lay dénk di dénk suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu seetaan ndax nee na mm-hmm. ñoom tam dee leen ci boole. ñoom Ibrahima Faye mu la ci Allemagne. alxuraan daa wax ne. wala takun lil yi xasima. loolu lañ dénkaan bi tey. mooy bul faral workat. amal ful la jutal ni bul faral workat bul ko défendre ah bul farak moom bul ko soqli bul ko téyal bul ko téyal ci mukaayam ndax yàlla daa bañ warkat moo tax mu ne wala takkun jël xaayina xasima bul jàppale benn warkat niñ koy xàmmee warkat warkat niñ koy xàmmee xaw na xaw na yomb hmm. koo xam ne kii bu waxtaanee boole ci lu ci bokkut hmm. kum xolool gañe la ndax ndax day sos uh-huh. lu ngeen bokk dugg mu rocc ko bàyyi la ca lu ngeen bokk wax nga dégg ko ca pénc ma loo ko dénk mu lay ba lekk ko kooku lañ ci dee warkat sunu borom nee na bul ànd ak moom mukk bul ko soqali mbukk waaw bul ko uh-huh. roqandi bàyyi ko mu dem rek ba sunu boroom jàpp ko jërëjëf jërëjëf oustaz kon nag nu bàyyi la nga tàggoog way way seetaan yi waaw tàggook yow tàggoog également ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di mm-hmm. joxante dig daje incha allah aljuma joxe dig daje aljuma incha allah yàlla ñu ci yàlla yóbbu kon mbokk yi bu leen toxal seen seetaan ci kanam tuuti ñu wéel jataay bi